la convocation du conseil de la consommation par le ministre Assome Diatta loolu dafa am régulièrement comme ni conseil des ministres di amee waaye seetlu nañ ni depuis lu ëpp at woote wuñ ko te loolu bokk na ci li nga xamante ni nañ ni lii kat wax dëgg yàlla jur na loolu ndax kat bu dee da ngaa jiite mbir da di yoon ngay woote waxtaan ngir mbir moomu dox moment bu ne comme conseil des ministres ni mu ko ni mu koy defee waaye seet nañ ni loolu ministre bi toog na lu yàgg a yàgg defu ko bi problème bi amee dañoo gis sax association consommateur yu alerte ne ana ministre bi mu doog a mën a woote wooteem boobu kon loolu jàpp nañ ni ñàkk a respecté euh, euh, sénégalais la. ñoo laa ko aussi mi ngi fàttaliku ni ñetti at mi ngi demandé état bu Sénégal ngir mu wàññi électricité bi. ngir mu wàññi lépp loo xamante ni lu war a mën a wàññeeku la waaye boobu ba tey nañ ni dafa def urdu euh, surdu oreille di doxal limu mu bëgg a doxal loolu li ñoo lànk de xam la ni ñi ngi wax sénégalais dañ ne mbejum kanam borom moo koy fajal boppam comme kat gis na ni ñii ñu jàkkaar loolu dañ leen a jox suñu budget dañ leen jox suñu ay lempo dañ leen jox suñu xaalis pour ñu jënd avion ga deug la waye bala nga jënd avion wala ngay e défar terrain sa askan da fay lek bu sour sa askan da fay nan ba mandi waye sét nañ ni lool yépp defuñu ko kon tax na ño lank faire appel à toutes les sénégalais wax len nak la am lo xamanteni bu amé yow ya ko mëna fajal sa bop ne ñepp vote sanction contre régime bu Macky Sall bi parce que kat biñ leen daré demander pour ñu défal askan wi loolu muy wañi tay yoy yag na té defuñu ko kon nak collectif ñoo Lank appelle appel au niveau national et au niveau international le marche pacifique boo mars pacifique. place de l'Obélisque baron le 10 bi di avons nous Sénégal pour nous dinañ dem ci bépp association consommateur dinañ waxtaan ak yow dinañ dem ci central syndicat yi dinañ dem ci syndicat yi dinañ dem ci sénégalais yi nga xamante ni ñoo ne ci biir kër yi dinañ dem ci sénégalais yi ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci bopp koñ yi di jaay di am journée téeméer ngir dundal ci seenu njaboot dinañ dem ci sénégalais yooyu parce que ñun sénégalais yooyu sax lañ fi gën a nekkal que beneen sénégalais parce que jàpp nañ ni loolu moom mooy Sénégal dëgg-dëgg loolu yëpp buñ ko dajalee ci suba dinañ ko tàmbali dem waxtaan a ngi ñu war a waxtaan ñëpp ci central syndicat yëpp ci côté bépp nag lépp